dal leen ak jàmm ci AGT News chaîne bi leen ngeen jëf mbokk yi ci ànd ak ñun ci AGT News dal leen ak jàmm journée sans presse moo nar am ëllëg ci bésub mardi bi patron de presse yi ñoom ñëw fas yéene banque seeni ay yoxoo par rapport ak président de la république Bassirou Diomaye Diakhar fay ak son gouvernement coono yi nga xam ne ñoom jàpp nañ ni moom la ñu teg ci seen kaw waaye dafa am loo xam ne ñoom fàtte nañu ko fan yi ñu weesu yàggul dara. Bassirou Diomaye Diakhar Faye di le président de la République am na ñu mu dalaloon ci ñoom am kàddu yu mu ci yëkkati woon waaye dafa mel ni gars yi dañu koo fàtte nañu teewlu président de la République ba noppi dikkaat ci suñu jàngat bu leen fàttee aimé vidéo bi partagé ko ñu bëri mën cee jot ba ci patron de presse yi nañ ko teewlu. man je l'ai dit à qui veut l'entendre personne ne peut me faire pour la bonne et simple raison que je sais pas chanter mais quand nag nga dem jël. de la de, des impôts ci journaliste yi téye ko parce que tàmm nga saa yoo ko defee ñu baal la ko ba y en a qui ont prélevé comme ça sur les journalistes retenus à la source sur salaire sur des personnes qui ont fait des prestations pour eux retenues sur 5 pour cent versées au tiers qui l'ont fait sur la TVA et la TVA bu xam ngeen lan la mais c'est pour c'est sur les, les, les, la publicité mm-hmm. et les annonces. Et c'est les mêmes qui vont aller dire non lii amul pour pourquoi defaruñu yoon bi mais defaruñ ko parce que justement il y a quarante milliards que des gens n'ont pas quarante milliards lu mën bëri bëri na. Mm-hmm. vous exploitez on vous donne une concession de service public à travers une licence on vous dit fay leen redevance ñu ne duñ fay redevance te yéen a ngi exploité. mais pendant ce temps là après boo xam ñu ne la c'est un secteur sensible d'accord j'entends mais les cliniques lan moo leen gën a sensible hmm. on opère des gens parce que on n'est pas en mesure de satisfaire toute la demande par des hôpitaux publics ay nit dem investir ci ay cliniques ay nit di di matu hôpitaux yi jëluñu leen en en charge ñu rawale leen ci clinique sauver leen sauver yaay sauver doom hmm. mais les cliniques dañu fay impôt est-ce que pour autant ñoom nee nañ non nañ nañuy suñu dette fiscale parce que c'est un domaine sensible ban domaine moo sensible parce qu'on a le micro. AGT News. réponse bii mu leen jox démb mooy réponse su tayam mooy ne président Bassirou Diomaye Faye melul nit ñi fi jugee. kenn du ko teg pression ba mu ciy séddee maanaam. bu njëkkaan yenn journalistes yi yenn patron de presse yi dañ daan am ay articles yu ñuy bind jëmale ko ci gouvernement wala ñoo xam ni dañoo am intérêt yu ñu bëggul kenn di ko daal di laal. yenn patron de presse yi nag ñoom dañ ci daan profito di ci am àdduna ak lu ci biiram ñenn ñi ci ñoom di faree ak nguur pour di am yenn privilège ak yenn avantage ñenn ñi ci ñoom itam dema dema dem comme li leen dal tey jëlee ba du ñu fay sax li nga xam ne ñëpp ko bokk mu di impôt. impôt di doxal réew ñu ci bëri am habitude bañ koo fay ba tey mu jural leen ay jafe yoo xam ne xamuñ fan la ñu koy waxee waaye réew nag dañ koy organiser. réew dañ koy teg ci yoon te képp koo xam ni da nga sa entreprise ala mikk di nga fay li nga xam ne moom moo di impôt. la woon démb moo war ni tey jii moo tax ñoom ñu am yenn jafe-jafe yi. dégg nañu fi Serigne Saliou Gueye mu ne am na yenn patron de presse yoo xam ne Macky Sall la leen naan jox lu toll ci cinquante millions de francs par mois. loolu bu régime bi changé ñu dagg ko boole koog di la fayloo impôt xam nga xel n la nga doon def démb ak la ngay def tey dina wute loolu nag mooy pression bi nga xam ni président de la république Bassirou Diomaye Diakhar fay kenn mënu ko koo teg kenn ci ñoom mënu fee organiser ay journée sans presse ba mu am lu mu yëngal ci tarafatal ay ni président de la république déedéet ndax moo nekk ci dëgg nag ak lu mënti xew ndax président li mu wax yomb na mooy ñun réew mi nañu xool naka la ñuy concerté woo ànd booloo nekk benn ngir suqali ko développé ko ko waaye pour développer réew mi dafa laaj ñuy fay impôt ndax impôt yooyu mooy tax buñ ko dajalee keesu état bi mën a am dara ñu mën cee defar tali tabax ci ay hôpitaux defar njàngameeg njàngale mi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne buñ leen doon lim duñu fi jógee am na nag loo xam ne kenn dàqu ko mooy waxtaan patron de presse yi ak état bi ñu toog trouver un terrain d'entente ndax nag ñëpp xam nañu ne président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak son premier ministre Ousmane Sonko bu ñu sañoon nit ñi dañu ba pare muy suux te nag il faut ñu préciser une chose c'est partout ñëpp gis nañ jafe-jafe yi nga xam ne moo am ca Walf bu doon dafa am parparloo wala ku ñuy privilégié bàyyi keneen konoon Walf du am benn jafe-jafe ndax xam nañ ne dafa porter le combat du projet porter le combat de la démocratie sénégalaise ba tey jile président Bassirou Diomaye fay nekk au pouvoir dégg son excellence tamit loo xam ne sénégale yëpp ñoo ko reconnaître kon nag bu dee waxtaan mën naa am ñu trouver terrain d'entente nañ ci dem waaye li kenn dootul nangu mooy di jéem a teg pression ci gouvernement bi ngir mën a am li nga bëgg loolee jeex na fi gars yi doon nelaw nañu yeew te xam na régime bi changé na Sénégal soppeeku na lépp lu ñuy defati léegi dafay tegu ci jub jubal ak jubbanti. AGT News. li mooy jàngat bu gàtt bi nga xam ne bëggoon nañ koo def ci journée san presse bi am ëllëg ci mardi bi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye tontu wal leen bu yàgg ñu joxante dig dajee beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf. man je l'ai dit à qui veut l'entendre personne ne peut me faire chanter pour la bonne et simple raison que je ne AGT News